Eh, kii nu mu tuddati kii nii mbooja mbaay mbooja mbaay xawma mbooja mbaay barke yo mal xaamal akbar li nga wax dinañ ko seetaat bi dégg naa ci biir waxam nee na góor buy sol buy sol caleçon maam day delloo day delloo jibi daraame gi <laughs> waa léegi Mbodj Ndiaye yow li nga santaane mun du ne góor ak nim mati góor barke yo mal xaamal akbar nga jox ko mbabal mu sol ko ba yàgg ma dégg mu naan danna war a sol caaya kese saaji lu bàyyi ko mu naan bëlëng-bëlëng kon dëkk bi toj na góor yi léegi yii xara 2004 xara sib si meew yi warke bi yow mal xaama lakk bar ñooy romb benn xale bu jigéen mu sol lu sexy jibi daraame bi fonctionné ñu naa ki linn ci tubay bi bant bii lan la nangam sàngam soxna si boo jë nañ xoolaat yëf yi saay-saay ci ngay dox yow lii waxi saay-saay la non non non lii doo am ci réew mi ci gën a métti nag leen la mu ko yénee na xale bu jigéen nee na war sol dara silib bu bu dang bu ñu nee na xale yu jigéen yu ndaw yi maanaam yu jir yanke yu su fees yi ñu ne warunoo sol silib ndax day delloo basante ba bu ji njaay bul toj dëkk bi yow saar yu mel ni yàlla ñu yàq góor ñi ñu yàq jigéen ñi barke bi yow mal xaama lakk ba mun man maa ciy jël ama di ngeen sol silib góor ñi dinañ sol caleçon jigéen ñi sol leen ay ni silib yu ndaw yi sol leen ay ni silib ji góor ñi sol leen ay caleçon <laughs> damaa jàpp ni ñun moom ñun moom ñun daa moom damaa jàpp ñun niwun ci jàmm ñi naan silib ñi naan caleçon télé yu tol nii duñ ci wax duñ ci wax fulla duñ ci wax fayda wàllum silib sexe sexe sexe ba kañ merde